artisanale de la Sonepi, anarchie, indiscipline, solida, asphyxiée par ses occupants. loolu laa bëgg nga ñëk rek tontu <laughs> balaa ñuy dem ci ay question waaw. muy lan ak lan. ah mooy euh, anarchie bi ak indiscipline bi ci biir Sodida. ah loo ci am yow bu yow foo nekk yow non Sodida wala Sonepi nga wax. man maa ngi solida non. déedéet nekkuma solida. déedéet fii du Sodida. fii fan la. yow Sonepi nga nekk. Sonepi laa nekk.

loo xam ne war nañ ci waxtaan eh, yow am nga ci wàll donte la yaa ngi ci commencé dugal sa loxo tey. Hmm. d'accord ndax. Hmm. zone industrielle Bourguiba rek moo am tout court. lu indi Sonopi ak Sodida. Sonopi bureau d'étude la boo xam ne président Abdou Diouf. moko un créé mu nekk un bureau d'étude mu de financement def étude de projet pour am financement pour réaliser Solida mhm. mettre ko location simple 10 ans location en vente 10 ans ainsi de suite mu nekkoon première phase ak deuxième deuxième phase bi moom lañ ñu jox ñun les petites et moyen ñu viabiliser ko suñu bopp lu fi nekk ñoo ko fa defal suñu bopp yow nga installé fii ci sono bi bokk solida seen table yëpp nag solida ngeen def dëgg la xaj na pour sax dina am dakkante waaye nag réalité bi bokk leen solida dana ngi nekk ci zone industrielle de ba

déedéet am na fi nag am na fi ay mécaniciens yoo xam ne ay attributaires lañ moom seen parcelle loolu nag la ko def bokk na ci bi Sonopi di attribuer respecté wuloon secteur yi. lu ko mën leen regroupé. lan moo wax respecté wu ko. administration la woon loolu mënu ma coon dugg. d'accord mel nii euh, yow bëgg nga si maanaam Sonepi tey sooy génn di doxantu di wër ci biir Sonepi di xool di yëngatu amul dara ni nga ko gisee daal ra yàññi na ba war nañ fi mën a ñëw xool visiter. dëgg bu baax yëpp ko viabiliser dama ne ni ngay gisee yow Sonepi laa wax bëgg nga ci kontaan nga <laughs> xar kanam bi mu am. waaw sooy doxantu ci biir Sonepi. waaw jamono yi di nga ci bëgg ci xar kanam bi mu am. non du ci bëgg du ma ci bëgg ndax ni mel. mën nga ñoo wax rek yow nan nga jàpp ni noonu la mel. li mu mel mooy am nañu ay xale mécanicien yoo xam ne jamono bi léegi li mu laaj li muy doxee xale yi danañu teel a beru lool génn nekk ci mbedd mi liggéey foofu la arrêté moom hmm. nee naa la. waxuma ne la waxuma ne la amul mécanicien yu ñu attribué parcelle ñu nekk ci mbedd mi liggéey waaye bëriwul quatre-vingt-dix ñu nekk ci mbedd mi liggéey yaa ngi woon ci lu lu am solo nga ni euh, dañuy jékki-jékki rek beru hmm. maanaam ku ne da ngay xëy ber sa daara xale yu ci bëri dañuy génn rek ber sa daara mais ban responsabilité ngeen ah waaw ñu mel ni yow la maanaam au nga ñëw hmm. góor xuma yore garage nga xam ne su ma ñëwee ci garage góor xuma fay fi cinquante mille laaj ma sàll apprenti góor xuma la bi ma fi ñëwee di lu moom la ma boole loon ma ne la waa mais maas man sama oto bi dafa am tuuti problème nga ne am indil ma ko wala nga jox ko góor xuma ma gaare ko ci mbedd mi di ko liggéey bo yéen seen staff da ngeen ci am en tant que organisation boo xam ne bu ah. formel la ah. ngeen ne yéen da ngeen regroupé en tant que ay industriel ak ay artisan nekk ci zone bi kay xanaa li njëkk seen responsable mooy fexe hmm. ba dëkkuwaay bi ku fi war a tegee noo xam ne waroo fi tege ñu taxaw na la du nii hmm. xanaa loolu nag duñ ko séntu ñu mel ñi waaw loolu hmm. euh, ñi ngi cee dox ay jéego loolu retardé euh, wu. ñu ngi dox ay jéego bu baax. ba génn sa kër du mu nekk ah, tax ah, ñu ngi ah, dox ay jéego. dox ñu ngi ciy dox yéen leen fu ngeen dox yéen tali yëpp taxaw nañ ci. fu ngeen jaar yëpp taxaw nañ ci. Eh. budul yu yàqu euh, ay lan la sax ay dénk yu kenn xamul lañ ci tali fan ngeen di dox. waaw waaye adduna. seet damaa gisul fan ngeen dox bu ngeen di def. adduna. Hmm. du du naka. ñu neexoon on industrielle de la Solopik gi quatre parcelles yi ba ci yéen fii mhm. la defandoo titre foncier jàll section définitive lu fi nekk titre foncier la bu wax foofu ay titre foncier la nit ñi ñoo ko moomal seen bopp muy la am valeur d'accord boo ma def boo ma déparé loon tey yow ba palais actuellement cent maisons yoo xam ne takkoon nañu am titre foncier. ndax loolu lay wax ji. amul waaw dafa nag foofu laa jëm si. Ah. waaw kay. Uh-huh. suñ ko amee nag am suñuy titre foncier am suñuy jarbaat ak suñuy doom mënuñu leen a xëy rek ba sàdd leen sànni leen ca àll ba. waaw leen teg ci yoon xanaa ñu organiser leen waaw foofu laa jëm si. Uh-huh. ci biir organisation boobu nag. Hmm. ci lañ nekk ak ñoom. tardé wu leen ca. déedéet tardé wul. Hmm. ndax. yàlla def na xataayu zone bi tax na jéego yoo xam ne Aly Ngouille Ndiaye sunu ministre tutelle moo ko doxoon. vingt parcelles vingt hectares yi ca Diamniadio na ba président daal fi lu jox nañu vingt hectares ak Diamniadio. ba léegi demagu leen. demaguñu xaj na lenteur administration moo fa am te biir loolu yemuñu fa. mu boole ñoog. les militaires formation professionnelle pour xale mécaniciens nous ñu jox leen dix hectares kon mécaniciens yi ngay gis ci mbedd mi tey 10 hmm. leen leen hectares <coughs> d'accord Abison. wax nga fi léegi tudd tudd titre foncier ndax titre foncier tey may na nit droit muy dund ci anarchie titre foncier dama yaakaar ni tey fi la rëddal rek foofu nga am mais beneen wàll wi askan biy dox ci kaw tali bi ñoo ko moom waaw xam nga su ma la waxee loolu dama la xamal ne la ñi fi nekk tey am seen titre foncier bu la neexoon ñoo am seen ful ak seen fayda dans trente minutes suñu doom yi fi saru jarbaat yi fi nekk jege fi mais bàyyil xel ne xale yii fi nekk de suñu doom ak suñu jarbaat ñu dee leen utal fuñ leen yóbbu pour jële leen fa kenn ku ci nekk tey yaa gàddu sa ndeeg sa baay gàddu wale ñi ñeneen yow doo xalaat loolu danga nga bëgg rek ñu tëb rek ramasser leen sànni ci àll ba pas tëb pas tëb ramasser leen ah. mais tey doom ak jarbaat ak mag frère lépp am na ku ci nekk sa njaboot nga yor ah. mais loraange ji am na ci dëgg la duñ ko wetti buy am ñun ñoo ko jiitu ñun ñi moom suñuy parcelle état jaayaat ñu ko mooy suñu titre foncier ñu def fi su def def fi suñu activité di jànkuwante ak leneen li ñun la gën a ñun la gën a métti ñun la gën a métti ci yéen ñi fi jaar waaye nag bëgguñoo tëb tëb rek bëgguñoo tëb tëb rek ne dañ ko war a def parce que quand dañoo xëy rek. xam nga xam bi dafay yàgg di dànkaafu mécaniciens yi fii toog à chaque fois ñu dégg ñu ne maire nee na dafay jëlee ñii dafay jëlee ñii mais tey jii dañoo gis ni lan moo gën a yéexal affaire yi koo ne tey suba dañ lay jëlee xam nga lan ngay indi li nga indi léegi amaana sax kon ñi say kàddu lañ lañ dégg fa la ñuy jàppandu à chaque fois. Mm-hmm. mooy maa yor samay samay samay njab maa yor samay wayjur ci man la ñu yaakaar. Mm-hmm. te pour man loolu du du excuse ba tax yow nga nit fu mu war a jaar tey taxi wala sa oto boo naree koo wax solidarité mu ne la du ma dem foofu te moo ne ñun tamit de fii lañuy gañee fii lañuy ñuy jàppalee sunuy waajur mais mm-hmm. xamuñu ni ñun tamit ñu ngi ñuy lor ñu ñuy tardeel suñu liggéey mais du ñun rek bul wax rek la rek de nangu naa ne du <laughs> yéen rek la yéen a ngi ci biir clients yi nga xamee ne tey ñu ngi fi ñëw ñu ngi ci biir mm-hmm. man du duma mécanique mm-hmm. defuma mécanique bâtiment ay travaux publics laa def. waaye dafa mel ni sa buntu entreprise bu ñu fa ñëwee dañ fa fekk ay oto yu bëri yu gaare ci tali bi. gaarin boo xamante ne dafay indi gàllankoor. ak bu gaare sama buntu entreprise. Mhm. te na la wóor ne dama am tolérance pour ba fa. waaye du sama ñàkk. fay loo ngir ba fa. ah loolu naxat loo déggoo la ak mairie. xam nga. Euh, gaare tamit Alaaji Sall ah. dafa ndànk. waaw. du nu déggoo ak mairie mairie bi bu sañoon li fi nekk du fi nekk ñun suñu sañoon li fi nekk du fi nekk dañu ne nañ ko dindi ndànk-ndànk ñu ngi koy dindi dara tëwul nag dara empêché wuñu nag ñu noon bu ñu neexoon tey tey tey mu jeex waaye àdduna du demee noonu xaj na tey tey hmm. lii fi nekk yëpp tey hmm. bu ñu xëyoon sànni ko bu subaa am jarbaatu saala biige bu dem seeti saala biige am jarbaatu góoro bu dem seeti góoro ainsi de suite ainsi de suite kon ñun li nu jàpp mooy ñu ngi leen di doxal ba am nañu ay hectares yu leen préparé d'accord seeni hectare demee mm. ci kàttanu yàlla mm. dinañ leen fa yóbbu. très bien Alaaji Sall te hectare boo xamante ne xamagoo kañ lay sotti benn te kenn mënut a defar euh, moo xam sur le plat wala omelette doo toj nen. donc loolu tamit c'est un problème bu nekkee tamit réew bu bëgg dem ca kanam. nama ne mooy amee ah. <laughs> wala nama ne <laughs> li sama doom ji di wax. Alaaji xam nga euh, Alaaji Mas. Hmm. dafay mel ni aussi li muy wax nii. toogaayam bi def mel ni Mbaye Sène lay def de contribution. te li yàgg li waaw question la mais dama koy dama koy dama koy ambale jox ko ko. dafa mel ni aussi li gën a tardé réew mi ci la bokk muy maslaa beeg sentiment bi. sa buntu kër dangay xajal léegi benn xale ñëw teg table am di kole ay dàll. nga xajal ko. Mm. mu fay nga nekk sama jarbaat la garaawul. nga xajal ko mu def fi juróom-benni weer def cantine. sës ko ci miir bi nga ne ah garaawul de cantine lay def. bu tegee ñetti weer commencé def fondation def def def ñaari miir boo ñëwee ni ko ñaari miir yi ngay def nii nag ñu ni waaye góor gi dafa soxoor waaye waa koñ bee njëkk génn waaye jàppale ko xale bi xale bi mu def miir jël na voie publique jël na ci sa kër baare na yoon insécurité tege insécurité tege boole kook fii bu ñu wàccee léegi 19 heures balaa ñoo génn fii nii camion yi gaari fii xam mécanicien lañ wax mais jaaykatu daal yaa ngi fi. Mhm. dafa defarkatu daal yaa ngi fi. vulganisateur yaa ngi fi camion yi gaaree ngi fi fii moom. li sama doom li wax léegi ab yi. dafa am ay grandes entreprises yu mag yu mag mais pëcc xoo boobu. xoo boobu man dama ne sax lii xëy na nii la nii la juddoo nii la mel parce que man mag may ba nekk xale bu nëgë ni euh, nii laa gis Sodida mel ko zone bi te xaw ma ne woon sax tey jii fii bokku ci Sodida. pucc xoo boobu pucc xoo boobu ñu bàyyi ko ci ba tey ngeen yéen a ngi préparé benn hectare boo xam ne jël ay mécaniciens yóbbu leen fa xanaa mécaniciens yaag cordonniers yaag eh, gaarekatu camion yaag jaaykatu ta tàndarma jaag ñëpp la ñuy boole kon yóbbu foofu parce fii moom moom li wér te mooy dara jaaru fi ci yoon balaa ngaa gaare léeg ma tooñ ñi fii balaa su ma ñëwee gaare rek war naa doy ñu xam ne liggéey si naa ma taala sama oto ñibbi balaa maa gaare du ne ñun ñëpp balaa ngaa génn li na ngay daj mais loolu kay bu dee yéen am ngeen ci pexe boo xam ne askan wi la neex mais askan boobu ne leen état jàppale maire yi jàppale leen loolu ñu defar ko parce que tamit fudd sax boo ci dee xalaat damm say yax du tàlli <laughs> euh, waaw euh, li nga wax dëgg gu wér la waaye mun nañu wax ne li ñuy waxaat rek ci la delluwaat mairie bi yaakaar naa ci semaine bii ñu nekk il y deux mois gis ngeen ne préfet mm-hmm. waaw ak sous préfet ñëw ñëwaloon seen bopp mm-hmm. gis ngeen ne am na tuuti changement gis ngeen ne am na fi ay riiw yoo xam ne ñun ci suñu bopp sax ñu ngi walante di ko defal ay paawaas suñu bopp ngeen seete am na fi ñaari riiw yoo xam ne awe nañ ko bu ngeen seetee Dembo Ndiaye rek ONAS mu ngi fi lu fi nekk nag na la wóor na chef d'entreprise yi fi nekk rek ñoo ko def bi nag dooleem néew na lool waaye nag mu ñuy accompagner li mu mën xaj na nag dooleem moo bariwut moyen moo bariwut ba pare it mu nekk zone industrielle liñ ci jox liñ ci jox maire yi liñ ci jox maire yi moo bariwut responsabilité bi maire am ci quartier résidence yi amuko fi fii boutique ba fay ubbi sax amna ci ca wàll mais zone industriel du loolu zone industriel c'est purement privé fii bi ñu ko jox c'est des montagnes de dunes Mm. ñoo def suñu bopp terrassement ñoo viabilisé li fi nekk lu dañoo ko def du route du téléphone du ndox mm. lépp lu fi nekk ñoo ko fi defal suñu bopp ba ci démb c'est privé mm. état defal luñ ci dara d'accord biñ fi toppee topp topp ab lay ri 14 prolo si bii rek la commencé yéen nag dinaa ñëwaat ci yéen ci sono bi ngeen bokk ñun esclave eh, di ñaanal borom kër gi moom day te jamonoom wax dëgg yàlla. muy mm-hmm. alaaji daan na wax ne lu ngeen nekk maa nga ci. Mm-hmm. kooku la alaaji benn baax jaay benn baax jaay. Mm-hmm. macha allah. day daan nañu tàllal loxo yi tam. waaw góor gu baax. ñu ñaan yàlla. yàlla yàlla ko. amiin amiin yaa rabbi yokk leeram. yàlla yokk te taas ci barke. amiin yaa rabbi Fatima wuy. Euh, zone industrielle Sonepi bi ni mu mel neexul kenn rawatina ñi nga xamante ne ñoo fi dëkk parce que boo xoolee euh, fiy dugg da ngay foone ay euh, bërëbu kaay rek a fi ne mais am na ay nit ñoo xamante ne fii nii euh, la ñu dëkk man dama ne amaana na sax pour jëlee leen fi tout d'un coup mënul nekk lu yomb mais au moins li ñuy wax épave moo oto yi nga xamante kenn mënatu koo defar économiquement comme euh, waa techniquement mënatuñ ko defar mais au moins sax ngeen commencé par foofu parce que euh, defe naa ne état bi commencé woon na ko fële en ville commencé oto yi nga xamante ne dañoo nekk ci kaw tali bi te kenn mënatu leen utiliser ñu leen fi jëlee ndax dem ngeen seeti ñooñu pour que ñu mën a euh, ñëw fii je pense que loolu benn début la au moins en attendant sax ñu leen fii mën a jëlee définitivement waaw loolu wax naa la la boo seetee y a deux mois

yow ak sa yeneen i moroom naaw lii fi am entreprise yéen a jël seen buntu entreprise yooyu noonu soit ngeen teg fa ay oto wala ngeen stocké fa seeni produit ba noppi bàyyi ñi nga xamante ne amuñu espace fenn ñu ñëw occuper trottoir yi mu nekk loo xamante ne indi na problème accessibilité après tey nga bëgg taxaw expliquer ñu ne ñu titre foncier la wala problème mu mairie mairie amul ay moyens certes mais dama bëgg nga comprendre que ne mairie il a pouvoir de police te problème bi ñu am fii Sodida du lenn dul entrave volontaire à la libre circulation man sa buntu entreprise romb naa fa oto yoo xamante ne taxaw bañ taxaw foofu du yoon te amul benn autorisation boo xamante ne am ngeen ko. Mm-hmm. dimanche passé gis naa fi entreprise boo xam ne dafa génne ay boissons yu expiré. Mm-hmm. ay tuur ko ci boissons yu expiré. tuur ko ci tali bi yu yàqu ay boisson yu yàqu yoo xamante kenn waxtu koo naan mu tuur ko ci tali indi xet goo xamante mat na mat na li mu fa tuur mat na ay litre waaw lu tax woo police non xam nga fekkuma ci disposition yi parce que def reportage ci EPA bi dinaa yow foofu noonu indi xet goo xamante nga woo commissaire Ba loolu ku teew la dara yëkkati sa téléphone woo dinaa ci ñëw dinaa ci indi xet goo xam ne kenn mënul nooy

site de dégagement la parce que oto yi di génn ci corniche ci zone bi la ñu war a jaar travaux yii nii am ci buntu Excaf travaux yi gars yi stoppé nañ ko depuis deux mois. waaw bàyyi fa un trou béant. non ban deux mois ëpp na loolu. ëpp bi ñu arrêté bi ñu commencé liggéey ëpp na ko mais bi ñu arrêté travaux yi ci deux mois la toll ñu bàyyi fa un trou béant boo xamante ne pour nga jàll ay difficultés. yu ba pare waajoo yi nga xamante mooy liggéey foofu ñu yàq justement lii ki doon raxas oto yi di kii amatul xëy. bàyyi fa bàyyi fa ay ah. problème yu métti métti loolu lépp nekk ay problème yoo xamante pour saafara ko. léegi nga noppi il faut nga bàyyi ko xam nga lu mu laaj ñu gëm ne lii gàllankoor la pour yow mi fa dëkk pour yow mu fay liggéey ak pour kii traversé. d'accord ñu yëkkati ko yow lan nga xalaat en tant que président. waaw euh, jërëjëf xam naa li wax ne lu tax nga fekk ñu tuur boison. Italie bi. waaw te yow wooyu police.

yenn ak ñun ñëpp. war nañ ci dugal suñu loxo. ndax lu ñu toléré toléré guddi sax dinga nga fekk ay camion plateau yoo xam ne chauffeur bi def ko fi dawal rek pour gaare ko fi dem doxi soxlaam ñëw jël ko déchargé wu fi dara. Hmm. jëleewu fi dara itam gis nañ ko fi gisaat nañ ko fi. Mm-hmm. ñu gis beneen bi tamit comme bi ngay wax. loolu itam. Mm-hmm. li mu wax loolu. Mm-hmm. lu am la. épaf yi aussi lu am la. comme nag yàlla def na. loolu am na tey kay constaté na ko. ñun constaté nañ ko. li ma jàpp mooy. zone bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñu bokk commencé defar tàmbali leen rek ñu dem. ñu bokk defar bi ñu commencé woon. Mm. ñu fas yéene continuer defaree noonu. mais ginnaaw constat boobu noonu ñëpp def mais ay chef d' entreprise ngeen ngeen nekk ci zone bi xanaa am na lu ngeen am am am ngeen njëriñ pour zone bi loolu aussi. fa fa am nañu amal ngeen njëriñ zone bi c'est-à-dire aussi ngeen ñu seeni activité est-ce que yéen a ngi contribuer ci liy yóbbu réew mi ci kanam ndax yéen a ngi jël ci doomu réew mi aussi di leen liggéeyal. tey chef d'entreprise yi ngeen doon ndax mën nañoo xam ñaata ci ay doomu aadama ngeen di liggéeyloo ci zone bi. waaw zone bi yaakaar naa tey li ñuy liggéey ci Sonopi Solida buñ ko génnee woon tey. Hmm. da nga ne kon li ñuy liggéey li ñuy lekk wala li ñuy jëriñoo senegal def fii la. Hmm. ndax. ah te ni douane boo gis fii lañ ko ñëwee. te ni douane boo gis. Hmm. mu sol.

Non, produit non, fait parce que, dans la zone de Solida, il y a 18 barrages d'activité. 18. Hmm. Secteur d'activité, beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup de Parce que préparé. En moins, combien d'emplois sont ici Employés sont beaucoup 7. On a dépensé plus de 6 000 emplois. Hmm. On a fait 4 ou 5 qui ont été a à 400 personnes. légi nag yan stratégie ngeen nar a mettre en place nag pour assainir tali nit ñi mën di dem di dikk te du jafe ah, parce que abi li wax dafa am solo da ngay jël oto ne ko solidaa laa jëm mu ne demul foofu nga fay ko sax lu ëpp sax mu ne demuma nga ne ko lu war a loolu mu ne dafay dafay serré loolu tamit nekk na jafe-jafe waaw loolu daal yaakaar nañ ne ñun ah, dina mos ah, jeex. Ah. joli cœur. la kii <laughs> ah dina mos a jeex. joli kër la dina mos a jeex li koy jeexal nag li koy jeexal nag. il faut ndran sàmm ñu wàcc Ndiaye bi mu fi ñëw avant muy nekk ci de l'intérieur la mo doon la mo doon taxawaayam fii. moom daje naan président tamit. waaw mais balaa loolu mais ministre Ali Ngouille Ndiaye ñëw. Ali Ngouille Ndiaye Costa bi gën am mom la amone. bi mu ñëwee constaté ne depuis 25 ans. entreprise yi développé nañ ba xajatuñ fi. Hmm. bëgg ñu ngi créé ji ay succursale loolu taxoon Ali dem ci président waxtaan ak moom ba mu jur vingt hectares yii hmm. ñu ju am tey. Hmm. kon te dama lay wax xamal ne la. soo ci boolee fii. keroog bi nu jàllee danaa ci dellusiwaat nga wax ñu ne amul solo. waxuma la viabilisation bi ñu def. mais terrain yi bi ñu jàllee section définitive ça nous coûtait un milliard quatre cent millions de francs CFA. état moo nu ko jaay nu jënd ko. un milliard quatre cent millions de francs CFA ku nekk fay am nga sa titre foncier. lu fi ne ko defal suñu bopp. Mhm. wax nga ko dëgg la. kon bokkul ak. asalem mhm. nga nga dëkk. Mhm. wala sa dëkk nga xam ne. addiction dooba. tey ba bu yàqoo sax

ne la zone industrielle Bourguiba rek la. dafa nekk ñaari secteur d'accord Sodida. Mhm. fa la yem benn promoteur immobilier la muy hangar yi. Ah. mu liggéey ko mettre ko en location simple et vente. lu bokkul ci hangar Sonopi la.

mais xat-xat ak da ngay tamit ay réunion ni ñoom retard léeg-léeg daal jafe-jafe daal. d'accord moo war bokk mbooloo bi daal daal nañu comme nañu luy rek nañ uti luy ji feneen. nañ ay génn nga joxe sa xaalis pare du am activité. Mm-hmm. mais ñun si oto boo ñëwee doom fa ko gaare. Mm-hmm. bâtiment bi bien sûr trois ans ou quatre ans yore nañ d'accord kon xam naa ki dara. Mm-hmm. et puis lieu boo xam ne bi lieu de rencontre la. zone industrielle la. kon kay dañ a soxla woon euh, bi ñu yore dafa am branche a tax ñu ñëw ci zone bi au moins mën gën am activité ci travailleurs yi. ba mhm. travailleurs yi nekk kon nga jigéen leen. Mhm. mais da ngaa dem ba mujj gi ñeneen travailleurs yoo xam ne bokkuñu fii doo leen amati. ñi nekk fii ngay am mais ñeneen ñi doo leen amati. Mhm. moo tax ñu déménager dem feneen. mais li mu wax nag. ah góor góorgóorlu rek du fii rek euh, anarchie moom baaxul fenn euh, nit ñi moom mu noonu daal. ko nag sa comportement ni mel rek. <laughs> ngay waree ngay parce que dafa am ñoo xam ne aussi. Mm-hmm. dañuy dañuy am lu am ba pare luy luñ bokkut. d' accord luñ par nag fu waay di taxaw. Mm-hmm. da kaa dañ ko kaa luy. d' accord dañ ko ko ko mm-hmm. luy mën nañ ko faa jëlee mais bu dee fi mu taxaw dañ ko kaa luy. loolu day indi problème dafay indi problème problème très bien merci beaucoup euh, monsieur Gora Khouma moom mooy secrétaire général URES mu union des routes euh, routiers du Sénégal euh, war a waxtaan ci kanam tuuti ak Moustapha Gueye ci sécurité et prévention règlement 14 de l'UEMOA l'État et les transporteurs accordent leur violon tout de suite